borom tubaab boo dul ko sàkk xawma kooka kan la boo dul ko njëkk njortu naa ne yow la ku dégg-déggam agsiwul na topp te xam ne lii nu way daa xaw a ëppi nopp bul jàppee wax ji sirk naa ma tuub ko ngir jekki nañ ba luñ ci góobe gar ko duñ mas a tuubi wax ji te duñ ko rëccu te liñ ci mos neex na ba duñ ko wàccu bismillahi rahmaani katabta alfa wallahi yow yaa ka xàll yoonu naarillaahi kadabta alfa kadibin wallaahi yow yaa ka xàll yoonu naarullaahi yaa feddi géew yow Mustafaa te yaa dof te xàmme woo luy hamza mbaati ak lif yaa yow Mustafaa te yaa te xàmme luy hamza mbaati ak lif yow sab raxas day fuqi ndab sab rabbu day rax përëm kon Seex Turé ngay àbbu cey buñ la yoree Mustafaa ci bàmmeel yow kottu ngay gan ci diiwaanu armeel cey buñ la yoré mustafa ci bammel yow kottu ngay gan ci diwanu armel, nga dé ci bi pas-pas kérok té wét lol fa jaaka nakiiru yow nga tit lol tallahi laysa yanfau ash-shakhs gada inda hulul ramsihi al huda boba nga xamné ne bi yalla yalla boba nga xamné yalla bur la yalla bur ba yalla mo sàkk jam ñepp azal te jàllaa boba nga xamné ne bur ba yalla moo sàkk jam ñépp asal te jàllaa moom moo amal luy daaba suufi duniyaa moom mooy ki not ñépp bi moom moo amal luy daaba suufi duniyaa moom mooy ki not bi duni suniyaa moom mooy ka fenti gii duusam ya moom mooy ka bënn mënd ndoxam ya moom mooy doxal arwaax yi ak labdaan yi moo ñu xaral luy dex kasa sayaan yi moom mooy doxal arwaax yi ak labdaan yi moo ñu xaral luy def kaza sayaan yi xanaa di jàngu ayatul kursi yi wax la mooy kan ca melaw kursi xanaa du jàngoo ayatul kursi yi mu wax la mooy kan ca melaw kursi yi wala nga jàng suuratal ixlaasi booba nga xam màggam nga rabbin naasi wala nga jàng mujj saari xasri wala wala nga jàng ndorteelu saaru dahri wala nga jàng mujj saaru xasri wara nga yér ndorteeru saaru dahri li ma ci métti mooy ne def na boppam ku kawe lool ba kenn du xam ay léebam li ma ci metti mooy ne def na boppam ku kawe lool ba kenn du xam ay léebam te xàmmewul nawet ci diine ak noor bal soxlawut lenn lu dul ne ay dóor li ma ci metti mooy ne def na boppam ku kawe lool ba kenn du xam ay léebam te xàmmewul nawet ci diine ak noor bal soxlawut lenn lu dul ne ay dóor day logg loggal di mel ni kuy cax lu yéeme lool te weesuwut lu nax day day logg loggal di mel ni kuy cax lu yéeme lool te weesuwut lu dul nax Sëriñ Tuubaa waxoon na mag ñi njaareem baada salaatil asri wax ju jar yéem Sëriñ Tuubaa waxoon na mag ñi njaareem baada salaatil asri wax ju jar yéem te wax ja mooy ni àddunaa ngi dëddu mbooloo mu rëy ku nekk man lay tudd sama ginnaaw te xàll yoonu sànku ngir soobu yoonu réer ba sax di alku kalaasu Seex Ture kalaasu Moustapha am saaluhum wa man bihim qad iqtafa ñoo yàq yoon wi yàq deru sëñ bi ñoo jël sëriñ bi boole kook borom bi kalaasu Seex Ture kalaasu Moustapha am saaluhum wa man bihim qad ñoo yàq yoon wi yàq yoonu yàq deru sëñ bi ñoo jël sëriñ bi boole kook borom bi buur yàlla yàlla te jaam bi jaam la ku dul ilahul arsi yow faqiir nga loolu jëmul dara ci mbaaxu bi ca waaje xam yàlla xamit sëriñ bi loolu jëmul dara ci mbaaxu bi ca waaje xam yàlla xamit sëriñ bi ahmadu mbàkke wax wa huwa arrafaa'i doomi sëriñ fàllu bi laa wax na ca ndéggeet la waxam ju dëggu te mooy ni ñii ñoo soobu yoon sànku ahmadu mbàkke wa huwa arrafaa'i doomi sëriñ fàll bilaa nizaa'i waxna ci ndeg get la waxam ju deggu ta moy ne ñi ño soobu yoonu sànku wa sallallahu ala nabi mbokk mi gannaaw bi nga seetaane vidéo ba pare ñu lay ñaan nga bëss fi ñu bind jëm bu fekkee gande ci chaîne bi nak bëssal fi ni ñu bind s'abonné après nga activer cloche bi ni mën nga tamit wax sa xalaat yi ni ci commentaire yi li nak do ci fay dara te dina tax video buñ dugalati di ci jot jaangi jëf